kuréel gi lëkkale ñenn ci ñi yeexantu maanaam di ay commerçant te féete ci dëkk bu tedd bi di Touba ñoom itam yëkkati nañ barkeelu bu am solo tabal ko ci liggéey bii di junnatun li man nazamaho ginnaaw bi ñu déggee wooteeg Serigne Mountakha Mbacké xalif général de Mourides ngir mu taxawu nag ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mile ci la kuréel gi nag daal di takkutoo boole seeni doole daal di koy jébbal cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké gannaaw am ndaje mun am ak cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci la ñu daal di ñëw nag fii ci kër Serigne Touba gi fekk fi junnatun liman nazamahu di kuréel gi nga xam ne nii Serigne bi moo ko fi samp ngir muy saytu liggéey bu am solo boobule. kenn ku ne jaayante seet la nga xam ne jàpp nga ne war nga mooy sax doxin nga eh, yëkkati ko def ko ñu dajale ko mu toll ci 52 millions 750 mille eh, ci ci biñ ko noppi nag mu wax ñi na ngeen jaar ca kër ba yóbbul ma fa ceeb ba te xam ne li ngeen indi fii eh, ci foofu la jëm kon nag bu ñu wëlbatikoo ñëw fekk leen fii yéen ñi nga xam ne yéen commission yu yéen junatu du def du leen jaajëfal baax baax ci liggéey bi nga xam ne yéen koy taxaw tey ndax dañoo waroon a tëj suñuy place ñëw ci biir commission bi nekk yéen di liggéey ba lépp mat ndax loolu moo ñu war suñu diggante dëkk bi ndax ñu lu am sëñ tubaa ñu ko may kon nag boo xamee ni dañoo nekk dëkk bi lu ñu am sëñ tubaa may euh, ñu ko bu sëñ tubaa soxlaa dañoo war bàyyi suñu yitte yëpp bàyyi liñ jàppoon lépp ñu ànd ak yéen ci liggéey boobu junnatul liman nasamaho ginnaaw bi ñu dalalee commerçant yi bàyyi ko marché Ocass ak Touba fi nga xam ne moo di résidence yëkkati ñu ay kàddu nag di rafetlu bu baax a baax jëf ju am solo jile jërëjëf sëñ Galas euh, ñu ngi nuyu sëñ Moussa ak mboolem kilifa yi mu àndal euh, ci turu Junnatul kuréel bi nga xam ne euh, kilifa yi ma ko àndal ñoom ñoo ma jox seen kàddu waaye ñooy samay kilifa. kon bu ñu bu may tudd jotlee kàddu ci yéen kàddu yi cant lay doon waaye liggéey la boo xam ne ñoo ko bokk ndokk bi nga ko waxee liggéey la bu ñu bokk te xam ngeen ko moo tax kon yéen dafa mel ni. seenu cant man dinaa ci lot ci jottali ko xanaa kay cantu mun Muntaxaa ci yéen dafa mel ni moom mottali suñu yéene ñun ñëpp euh, ba ngeen fa àggee la mu leen waxit noonu dong la demee euh, li nit joxe foofu ak li mu joxe fii fii ñun ay lantinoor rek lañu fa fas ne doon waaw nga xam ne lu fi dugg moom moo ko tax a jóg foofu it ginnaaw moo nuy liggéeyloo moo waxoon nañu ñett ngeen maa leen ñeenteel loolu it ba mu ko waxee daf ko findeel bis bu set sëñ Cheikh Ibrahima Mbacké daf ko fi xëyloo muy ñëw di ànd ak ñun liggéey bi kon dal na ngeen xam ne eh, yéen yéen a am tawféex yi ñëw féeteeg sëñ Tuubaa ci dëkkam bi te loolu it doonu loo xam ne ngóora dina ko maye dina doonu loo xam ne ab juddu sax mën na koo maye dafay loo xam ne tawféex yi suñu borom rek. kon jërë ngeen jëf di leen sant ci turu Junatun fas yéene ànd ak yéen liggéey bi rek ba sëñ bi li mu bëgg ci dëkkam bi ak ni war a mel. nu góorgóorlu ba su borom defal nu ko. kuréel junnatul liman nazamahu ci fàttali di kuréel ga nga xam ne ni Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jëwriñi Xaadim Rasul moo ko daal di samp boole ci commune bu Touba Touba ca kanam ak daara Hizbut Tarqiyyah ngir ñuy taxaw nag ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi ba ñu tàmbalee seen ab liggéey ak léegi nag di def ay jéego yu am solo fii ci kër sëriñ tubaa gi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fasantikoo ci ay mbooloo wala ay bërëbu liggéeykaay ñëw nañu indi seeni ndimbal jëmale ko liggéey bu am solo bii donte booba ak léegi def nañ ay jéego yu am solo terewul nag benn yoon ñuy soññaat mboolem jullit yi ak taalibe yi moo xam ñu nekk ci réew mi wala bitim réew ngir nag ñu gën a feddliwaat laxasaay yi xam ne liggéey bi des na lu am solo. te nag fas yu ñu yéenee bàyyi benn yoon feeg defewuñu ko. ni ko sëriñ bi bëggee.